archidiocèse de Dakar jënd na terrain bi ci atum 1999 ñu amal délibéré communauté rural bu Sangalkam ci atum 2001 li ko dalee 2017 ñu am ab jote bu njëkk ak njabootu Maguette ñas sous-préfet wu Sangalkam bi fi nekkoon ci jamono yooya jéem na lu nekk wande sottiwul bu fukki at ak juróom bàyyee ko ñu amaat ab ñaareelib jote ak ay promoteur yii di Modou Mahfou Sila ak Mamadou Ndiaye ñu ànd ak ay géomètre di ñaw ci bërëb bi bàyyiwuñu sax dimanche si waxtu bi nga xamante ne ci la ñuy amal suñuy mees araftu nañu suñuy ndaw yi ngir ñu bañ a def doole ndax ñawteef bañ a am yaakaar nañu ne suñu président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay dina ko saafaraal ngir mbir mi jeex tàkk ñuy ñaan suñu njiit yi ñu mun baaxe ab terrain ngir waa secteuru Saint Innocent yu nekk sa ñàgg mën a am fa ñuy jàngee mees ndaxte ci ab kër la boo xamante ne suñu ab benn mbokk chrétien moo ko moom abal leen ko ñu di fa jàngee mees